الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسانو فيدو بي كوشي تي بي جسانو فيدو بي نيت فاني ييب ييب سوني خلان كي سنغال سوني خلان كي سنغال سنغال بي ني دوندو ليغي سنغال غي ني دوندو ليغي تمو ام اي جافي جافي لول كين خماتوت فوي جار كين خماتوت دي لامباتو ñëpp dañuy làmbatu. ñëpp dañuy làmbatu rek. waaye ñu ngi ñaan yàlla ci barke alquran ji ñu wàccee fii. yàlla dëgëral Sénégal. yal na yàlla dëgëral Sénégal. yal na yàlla jubal ko. na yàlla jubal Sénégal. ci yoon woo xam ne. ci yoon woo xam ne. njëriñam ci lay génnee. njëriñam ci lay génnee. te lu mën nekk la. mën a nekk la xam ngeen. boo amee góor ñu ko taxawee. boo amee góor ñu ko taxawee. mos na benn président ci président Sénégal yi. sëriñ bi ne mos na wax ak benn président ci président Sénégal yi. mu ne ko Sénégal gii. mu ne ko Sénégal gii. baatin bu rëy la am. bu rëy la am. addina bi yëpp nangul nañ ko. bi yëpp nangul nañ ko. baatin boobu nag zahir su yem noonu. boobu nag zahir su yem noonu. moo ko war a topp. moo ko te mu ngi ñëw. ay ay góor ñu intègre. boo amee ay góor ñu intègre. yu dëgër. yu dëgër. yu bëgg. seen réew. seen réew. nekkuñ di toxal di ñu indil rek. nekkuñ di toxal di ñu indil rek. waaye dañoo xam seen réew ak xam-xam bu ñor. waaye dañoo xam seen réew ak xam bu ñor. ñu liggéeyal ko. ñu liggéeyal ko. amul sikk ne zaahir soosa dana feeñ ci réew mi. ñu ngi koy yaakaar ba léegi ñi nga xam ne ñoo jiite Sénégal. ñu ngi koy yaakaar ba léegi ci ñi nga xam ne ñoo jiite Sénégal. ñu ngi leen di ñaan. ñu ngi di ñaan. ñaanal yàlla. di leen ñaanal yàlla. may leen maandute. yal na yàlla may leen maandute. yal na peuple bi ngeen di sàmm. yal na leen yàlla xamal leen ci seen peuple bii ngeen di sàmm. peuple bu ndaw de. peuple ay wàllu yàlla ñoo ci peuple ay wàlliw yàlla ñoo fi ne. wàlliw yàlla yi jeexuñu de. wàlliw yàlla yi jeexuñu de. yemut ci baay de. yemut ci baay de. yemut ci keneen. yemut ci keneen it. fileeg yàllaa ngi fi. fileeg yàllaa ngi fi. ay jaamam di fi nekk. ay jaamam di nekk. wàlliw yàlla yi di fi nekk. wàlliw yàlla yi di nekk. waaye ña koy ñoo koy waaye ña ut nag ñoo koy am. ñi ko xamut utuñu ko. ñi ko xamut utuñu ko. ci benn ceeb. amuñ ci benn seetlu. amuñ ci benn cër. amuñ ci benn cër. te seetluwuñ ko itam. te seetluwuñ ko itam. yal nañu yàlla sàmm. yal nañu yàlla sàmm. ñu xam ay may yàlla yuy tuuru ci suñ kaw waxtu wu nekk. ñu xam ay may yàlla yuy tuuru ci suñ kaw waxtu nekk. mën koo ñu koo sant. ñu mën koo sant. ci jëf. ci jëf. ñu mën koo sant ci wax. ñu mën koo sant ci wax. ñu mën sant ci jokkulante. ñu mën koo sant ci jokkulante. ñëpp Sénégal ndax ñun ñëpp Sénégal rekk lañ bëgg. sama sama sama sëriñ bi ne position yam. mooy dama respecté suma mooy dafa respecté institution réewam. président de la république. de la république. ba ci alkaati bi ci mbedd mi. ba ci alkaati bi ci mbedd mi. respect rek la ko xamal. la ko xamal. alkaati bi bu ne ma sëriñ bi jaaral fii foofu bi bu ne ko sëriñ bi jaaral fii foofu lay jaar. du ma weranteeg moom ndax xam naa ne moom mooy réew mi bu boobaa réew may wax ak man te waruma jàdd kàdd réew mi yal nañu yàlla dimbale yal nañu yàlla sampal suñu réew sëriñ bi ne mu ngi leen di gërëm bu baax itam sëriñ bi ne mu ngi leen di encouragé itam déggal ci wax yoo xam ne du noonu xam leen ne waxuma leen damay wax rek pour ñëpp ne bu ay wax yoo xam ne du noonu it na ngeen xam ne waxut leen moom dafay ku wax rek pour ñëpp jëriñu yal nañu yàlla jëriñ laa laa ilaha illallah waa Kossy TV am ngeen ngeen leen yéen ñi ànd ak baay yéenay liggéey faydu baay bi si di barahama Kossy TV am ngeen jaaraama yéen ñi ànd ak baay yéenay liggéey faydu baay bi si di barahama ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di